Salut les amis de Sport TV de Babo Show. Merci encore, gars, de la confiance renouvelée. Merci de des Merci de abonner. Merci également de les commentaires. Un plaisir renouvelé chaque fois de partager les informations. sénégalais, fait pour les 14 régions du Sénégal, de Gorgorati, Ninglen également l'hôpital et du aussi, erreur judiciaire ak jinne ñu deful moo leen fa yóbbu suñu borom génne leen fa delluwaat leen seen i njaboot ñi dëddu àdduna suñu borom xar leen ajana fi daw si gars yi te ñu on avance ensemble dans la magie de Baba Show et des Sport TV l'actualité on continue gars yi ñu fas seen waxtaanee ki mooy donc kii di Fodé Ballo Touré mi nga xam nag mi ngi dem di côté de Saint-Etienne ni mu leen ko waxee woon mais aussi kii di euh, également Sergio Ramos ñu koy tudd di côté de Al Nassr lépp ñu fas yéene ci indi ay détails jox leen ci ay leeral pendant ce temps nag li nga xam mooy donc 90 minutes moom nag prédiction yi ñu def ak statistiques yi dañoo jàpp daal joueurs ni ku nek mo na jël meilleurs di meilleur entraîneur meilleur buteur meilleur milieu de terrain meilleur gardien. meilleur jeune joueur yep mi ci et pendant ce temps Arno Slot ak quoi? Liverpool nga xamné zéro recrue lañ def ñom ne nañ équipe alors que Manchester United nous ñom te titre de série tiital nous avons supporters ñoom def nañ recrutement yu bari waye nañ ba pareeguñu loolu nag fi ne moo tax di naan Ten Hag moom fan la bëgg a mais aussi ki nga xam donc Lenny Yoro moom nak gars yi nee bañ koy recruter ci Manchester xamoon nañu dafa am euh, problème blessure way dañoo jàpp ne blessure moom bu wéré dina bok ci meilleur défenseur motax dañ koy jënd fi mu ne il est absent au minimum deux à 3 mois Lenny Yoro ki nak di Alonso ancien joueur de Chelsea également de FC Barcelone parti librement du Barça moom nak jamono ji dal il est intéressé pour dem du côté de Manchester euh, United loolu la daal di euh, bëgg Alonso qui veut revenir en Angleterre loolu daal la gars yi di wax kii nag di Pep Guardiola nee nak nag ñoom ni il faut que ñu jëndaat ay peut-être ñu jëndaat ay yeneen joueurs. nee na nag loolu du ko waxee ah, donc mais dans li ñu mën a rek que peut-être que vous ñu gisee opportunité dinañ nous d'aller recruter un euh, joueur mais aussi dellu si na ci nga xam donc euh, le jeune Bob bi nga xam ne nak dafa ni am absence 3 trois à quatre mois qui nak di Guardiola confirmé l'unimel. lu ni mel nee tamit ah loolu entraînement ba la xewee donc jour le boo xam nag essentiel le woon dina ko mais quand même comme je li ëpp solo mooy booy bi daal di du côté du Real Madrid nak ñom nag fi ni ne dal recruter wuñu ben yoon saison bi parce que gisuñu jour bo xamné tay ci euh, li xam moy marché bi ñom dal na yem seeni beut am nañ équipe complète loolu dal tax na ni dal Fiorentino Perez néna dal wa euh, Real duñu recruter wat loolu dal lañu xamal pendant ce temps ki nga xamné ne moy donc Sergio Ramos ancien joueur du Real Madrid passé également par le Paris Saint-Germain avant boobu mon FC Séville la mu delluwaatoon FC ton FC mu ne ni il est parti librement du FC Séville nak ñu koy tuddu du côté de Al Nasr Al Nasr nag yenn yi ñu ngi naan daal Al waxtaan ak ki nga xam ne donc Sergio Ramos pour daal di koy réunir moom ak. Cristiano Ronaldo mais aussi formé li donc père défensif, avec la porte la porte nga xam nak wax ba Atlético Madrid également à Real Madrid aussi ñi ngi pour recruter porte. c'est Ramos mi donc il est convoité pendant ce temps ils disent mon le nouveau numéro 10 de la Juventus de Turin ba paraître prolongé contrat de 2029 il rejoint les joueurs qui ont porté donc le numéro 10 Platini ñom Del Piero Paul Pogba entre autres Fodé Balotelli touré waxoon naa naa ñi di wa Saint-Etienne ñoo intéressé woon na fi Saint-Etienne ak Milan AC djubo nañ pour mu daal di koy jaay ki xamoy donc faut Ballo-Touré joueur bi nak mom mo ci des di ak Saint-Etienne gaay nak il serait ouvert pour d'aller di dellu du côté de la France moom mi nga xamné nak comme je dis man pour man régression là parce que jógee Milan dem bay Saint-Etienne Mon ngok maintenant nak à lui de faire ses preuves parce que nit ku nek di nga am ay hauts am ay bas mais on espère qu'il va faire ses preuves parce que depuis quelques temps faut Ballo-Touré a l'impression euh, qu'on a l'impression plutôt que faut Ballo-Touré progresser wul les amis lii moo nekkoon information Bonjour c'est toujours un plaisir de vous servir ah bu abonnez-vous sur une chaîne YouTube également du Baba Show TikTok e-Sport TV 1 qui euh, dit instagram Instagram eSport Inter tout à l'heure nag dina am live comme je dis tey commencer après les matchs de débrief leur point mercato su barre ci le le gars yi